yàlla Tanor yàlla na ko yàlla yëm ak ñoo ñëpp ànduñu woon mais bi ñu waree combattre le 22 juin ñoom ñëpp dañoo ñëw taxaw fii jàppandu ci grille palais bi xeex ne pour nangam moo tax ñuy xeex donc dafa toll foofu léegi léegi wax bi foofu la toll wax bi moo toll ci Macky Sall mi ci Abdou Roum nanu collé les bottes nanu bàyyi opposition il faut mu am cim réew non lépp non man xam nga man man wax naa bu yàgg ni bu dee dil bi la dil bi moom man man jàpp naa ni Macky Sall moom mën nañ ko cee génne ndax bu fekkente ni moo dil dilu cuune bi bii bii lii dilu cuune la moo tax ma ne la man laa wax man connaissant l'homme ah connaissant l'homme moi je pense qu'on lui a fait def defal nañ ko benn doom rek après xamatul nu muy def ñu ne ko boot ko non non ban je ne pense pas parce que dil bi moom moo jaxasoo setut set goo xamante ne maanaam mën nañ koo jiiñ kilifa gu toll ni Macky Sall mais nag comme que moom xam na ni du moom il n'a qu'à arrêter ça arrêter arrêter bu dee il est au courant actuellement nii il est au courant parce que on me parle de plainte entre deux civils mais c'est pas vrai qui est Adji Sarr qui est Adji Sarr pour se faire transporter la nuit la nuit d'une de, couvre-feu par une une voiture d'une avocate et d'un médecin du mbindum mais ñun xanaa man xanaa xamoo ni man man man ginnaaw raay laa dëkk di faa bi rasta saar ma jur xaji saar mu nga ca sunu koñ toog xaji saar bay bay bind dama ne jàngul jàng boobu bay bind donc je pense que nañu bàyyi jeu yi bàyyi fo bi nañu dellu si waat ci coronavirus bi sama sama kanam gi li tax mënoo koo gis mënumaa gis sa kanam nañ ci delluwaat foofu la pays bi toll mais tolluwul di seetal procureur AX procureur na seet enquête te benn affaire tamit dinaa leen ko wax waaye yow viol moom kan lañ koy def viol Adji Raby Sarr Adji Raby Sarr moomu am jëkkër ba tas ne ma def rapport sexuel ci lii maa ngi leen di gërëm di leen sax